Thank you. Ah, mbokk yi ba léegi rek euh, yéen a wéy di ànd ak ñun dañu dégloo ko seetaan ñu daal di dellu rek niñ ñu ko baaxoo di ko defee saa su ne su waxtu mayee ñu daal di jukki ci lenn daal di ànd ak ñenn ñoo xam ni daanaka njot nañu seen xam-xam màcc jëm ci wàll wi ngir buñ ca noppee ñoom tamit ñu mën ñu indi lenn loo xam ni rek dafay jëm ci wàll wi euh, kon mbokk yi kàddu gi Ndiaye Abdoulaye ñu fas yéene wéy ànd ak ak kenn koo xam ni daanaka rek su biramee dañ koy woo ngir mu waxtaan ak ñun ci wàllu yi muy Oustaz Niang yaa Oustaz salaamaaleykum El Hadj Abdoulaye yaa Oustaz maa ngi lay ziar ñu ngi lay ziar baax Ndiaye ñu waaw xam nga ne démb am na ay ndogal yoo xam ni indi nañ ko jëm ko ci wàllu réew mi mhm. ñu ne vingt heures su jotee ku ci nekk fa nga mhm. nekk mën ngaa toog saw kër ña ko def nag lañ ci jublu mooy jàpp nañu ne noonee suñ ko defee dina bokk li tax ñu xeex yëf yi ndax docteur bi ak soldat bi yaakaar naa ne ñoo bokk mission ndax lépp lu ñuy def lu sacré la doomu aadama yi leen itteel yow mi kilifa diine yow mi imaam mbir moom su amee da ngeen ci am kàddu ku yëkkati yow lan moo ci sa gis-gis ci ndogal gi nga xam ne njuut jël na ko jërëjëf alaaji Abdoulaye ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu sa auditeurs yeeg yi lay déglu ci réew mi ak yi lay déglu ci bitim réew yëpp di rafetlu itam boole gi ngeen ñu boole ci seen émission bi le di ñaan yàlla yàlla nañ ko teewee at yu bëree bëree bëri Abdoulaye li nga wax dégg nañ ko mu mel ni loolu itam euh, mooy li nga xam ne moom la suñu nguur décrété muy lu ñu tudd état d'urgence teg ci li ñu tuddee couvre-feu mhm. mu mel ni itam médecins yi nga xam ne ñoom la yàlla dogal ñu jàng xam-xamu médecine ba xam liy lor nit xam li nga xam ne ni mën na gaañ nit ñoom it ñoo gisee ak ki nga xam ne moom la yàlla dénk réew mi ñu waxtaanee ko ba xam ne kat am na jafe-jafe am ci àdduna bi te jafe-jafe boobu ko doon dégg ca bitim réew muy law di law ba yàlla dogal mu dugg réew. Mm-hmm. kon nag jafe boobu itam buñ ko sàgganee na mu def ca bitim réew mën na koo def fii ci réew mi. Mm-hmm. ñi nga xam ne ñoo ngànk nguur gi nag xam ne. loole ji nga xam ne bitim réew am na ko bu demee ba jafe-jafe boobu am ko muy feebar boobu te mhm. leen kon ñun war nañoo jël suñuy matukaay moo tax président de la république décrété li ñuy tuddi état d'urgence mhm. daal di wax ne bu juróom fukki vingt heures jotee ci ngoon ba six heures du matin bu kenn génn ci dem fenn loolu nag lu ñuy rafetlu la di ko ci mhm. ñaanal yàlla ndax itam bu deful woon noonu dinañu jaaxal ndax responsabilité bi nekk ci moom lu am solo la xam nga ay yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am lu ñu jàngal kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ne yéen ñëpp ay sàmm ngeen te kenn ku nekk ëllëg yawmal xiyaam yàlla dina la laaj la nga doon sàmm moom nag mooy sàmm bi nga xam ni mooy sàmm réew mi yëpp moom la ko yàlla tegtoon kon nag su amee ay information yu ñu amul xam lu ñu xamul yi yëg loo xam ne ñun yëguñ ko loolu mën na jëfandikoo pouvoir bi nga xam ne moom la ko yàlla jox moo tax ñun ñu ko di wax nag population bi yëpp nañu respecter loolu parce que loolu ñàkk ko respecter mooy da ngay défi sa gouvernement da ngay défi sa réew waaye da ngaa def def défi itam jëmale ko ci l'islam mhm. ndax itam l'islam bi li muy yaatu yaatu tey mboolem kuy kilifa diine ci réew mi tey ak martaba bu la mën a yàlla jox ci wàllu àdduna ki nga xam ne moo yor réew mooy sa kilifa mhm. kon nag loolu itam nit ñu war nañ ko respecter te bàyyi ci xel bu baax te mën a bañ a fexe nag ba indi benn bañ a indi benn fitna ci réew mi mhm. ndax alquran mu ñuy jàngal wa taqu fitnatul laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa wa alamu anna allaha saduli aqaab mhm. yàlla ngi wax ci alquran naan na ngeen moytu fitna ndax benn nit bu defee fitna nee na yàlla nee na su muy duma duma duma benn nit ñëpp lay duma noonu loolu Ablaye mën nañ ko lay mhm. xoolal feebar bi tey rek Ablaye ñan ñan ñoo ko toon ñoo ko tàmbale woon waa Chine xoolal amul kenn ku ko yëgul wala koo xam ne ni amoo ci ay cas